xamna ko li mu dem di wax ak papa naturel xamna naa ko ta sa caa boo musuma ko bolé sama vie kon lu su yoram sama vie ba dem di wax ak papa papa ndey yow man maa ko yem da nga ñaaw ndort ñaaw ma ndort waru fa dem da nga xam lan la fa wax mur lol la l'amour de ngay wax vrai quoi de ngay wax la vérité de l'amour ah, yow defoo ko de <laughs> man kay dama xaw fausser faussé calcul bi rek pour man su ma defee loolu noonu la foofu la action yi di baaxee. foofu nga yàqulee nag. daloo si sax. daloo si. gis nga boo yéexoon a wàcc ci kaw laa lay fekk claté bomb bi parce que xam naa ne li ma indi du sa arrangement sa jabar ju njëkk ji ardo ah. fase ko. yow li ma xam ci yow moo bari doo def dara. ci mèche xam naa ne dëkk bi moom def lu baax war na fee man la yow may ma sama jaam yow. yow sama rakk. ah ma war a dox ci a dox ci say mbir jël sama alal def ci nga naan damaa dem laaj papa xaalis. waaw damaa dem laaj xam ndax yaa dërëm ngay jaam. baat waxuloo ko may naa la baat yow may loo ko baat moom taxawul mu ñaan baat kon kay baat demul boo léegi baat mu ngi des fu mu war des ah, walaay. seex nag day wax waaw. daf may jéem a chantage pour wax jéem ko wax Fatou Kiné nekk yooyu. ah Seck dafa xam diggante. waaw dafa xam xaw ma nag mu dafa xam ko xalaat moom. doomu aadama la dafa garaaw. li ma bëgg yow xamoo ko laay. non depuis boobu ba léegi xamoo lan lay dox ci lan lay ci lan lay dox. xamuloo ko waxuma li nga bëgg. xam lan laa bëgg. mooy que nga sa digganteeg ki Kiné tas. man ma may ko ba iddaam jeex ma takk ko.